Euh, li ñuy wax rek euh, lu def di wax li ay di njàmbat ñu fas yéene utali fi nga xam ne rek mooy Touba. Touba nag ñu fas yéene màggalee ki nga xam ne mooy Cheikhul Khadim bésam bi nga xam ni mooy bés bi mu doon dem ci géej gi mu nekkoon bésam ndam mu woote woon ci ni képp koo xamante ni ju jullit nga rawatina taalibe ñu ñëw màggale ko bés boobu moo waral incha allah dimanche ci ton tombeek ñaar fukki fan ak juróom benn ñu war a euh, célébrer li nga xam ne mooy dem géej googu waaye tamit euh, fas yéene ànd ak yéen ci wàccaayu màggal gi tey ñu ngi fii ci Diourbel tombeek euh, li nga xam ne rek mooy àllarba ñu fas yéene wanale leen ku tedd ki nga xam ne mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp miri Mouridina ak jaar-jaaram ak digganteem ak Cheikhul Khadim waaye tamit li mu fi bàyyi kon ak équipe technique bi ñu àndal maa ngi ànd ak Mbisantine sama collègue sama confrère waaye tamit euh, sëñ Fallou ci caméra bi ki nga xam ne mooy Jéy tamit ci caméra bi ak suñu chauffeur de El fay kon ñëm ñëpp tey ñu ngi mobiliser wu ñëw pour wanale leen ak li nga xam ni moo fas yéene xew fii ci njaareem waaye fële ci Touba ci bésu màggal gi kon ci kanam rek dañuy daal dugg ci barabi sell yi wanale leen ak li nga xam ni mooy euh, li nga xam bagage yi Cheikh Ibra yi waaye wanale leen tamit ak histoire ak ñi nga xam ni ñoom la ñuy àndal ci liggéey bi voilà mbokk yi ñuy seetaan ba tey si seen premier site euh, internet euh, fii ci Sénégal Sénégal 7 ànd ceeg li nga xam ne rek mooy groupe am di informer ak euh, Dakar Net ñi ngeeg ki nga xam ni nag euh, sët la ci Cheikh Ibra ñu gën ko xam ci Cheikh Malick Fall tey nag moo ñu dalal fii ci barab bi nga xam ne barabu maamam la ñu fas yéene ànd ak moom mu wane leen ak barab yi waaye waxtaan nañu tuuti ci histoire ki nga xam ne mooy ku tedd ki di Cheikh Ibrahima Fall rawatina digganteem ak ki nga xam ni mooy Cheikhul Khadim mi ñuy waajal màggal gi ni ki euh, dimanche incha allah kon Cheikh dañ lay bàyyi rek Malick nga nuyoog mbokk téléspectateurs yi laata ñuy dugg ci li nga xam ne rek mooy jataay bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñu ngi leen di siyaare di leen màggal di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di leen siyaare ci màggal gi nga xam ne mooy màggalu sëriñ Touba Cheikhul Khadim mi ñi may jàmm àdduna ak àllaaxira maanaam ñu ngi jiital si siyaar bi nag sëriñ Mountakha Bachirou yàlla na ko sa borom yàggal may ko wér di siyaare sëriñ Amdi Xadi euh, euh, sëriñ Amdi Modou mi nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall Babou dina di ñaanal sëriñ Cheikh jëmm sa borom yokk ay leeram fa mu nekk di ñaanal Serigne Cheikh Ndigal mi nga xam ne moo nekk ci kër gi mooy borom kër gi moo fi nekk tamit ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di siyaare mbokku taalib yëpp di leen ñaanal màggaluk jàmm ak ñëw ak di jàmm ak salaam barke Serigne Touba Cheikhul Khadim di leen xamal ne tamit yéen a ngi ci kër gi nga xam ne mooy kër maam Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridina bi nga xam ne moom la ñuy baabul Babul Mouridina nga xam ne moo xallu yoon bi nga xam ne moo jëm ci Serigne Touba Cheikhul Khadim euh, maanaam nag kër la goo xam ne yaay jeexeeti maam Cheikh Ibrahima Fall rek moo fi ne ak Serigne Touba daan jëlee ci Serigne di ko dugal ci biir kër gi ak yi nga xam ne tamit daan na fi jógee dem di fekk sëñ Tuubaa maanaam kër gu mag maanaam nag kër la goo xam ne maanaam def na fi fukki at ak ñett ñeen ñi nee nañ fi def na fi fukki at ak juróom ñaar yooyu daal def naa moom moom lañ lañ la ñuy jàpp waaye ñëwut ak sanc fii daa njëkk a sanc Madina Gueye doog a ñëw fii sanc fii tudde ko Makkatal Mukarrama la ko tudde mhm. kon loolu barab bi yaakaar naa am na lu muy symboliser ci yoonu Baye mm-hmm. waaye tamit euh, am na lu muy euh, euh, taaral mm-hmm. ci li nga xam ne mooy diggante mm-hmm. li nga xam ne rek mooy ku tedd ki di maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babu Mouridina ak ki nga xam ne mooy jëwriñam de di Cheikhul Khadim ndaxte fu mu dem mu topp ko ba moo waral bi sëñ bi jógee ci tukki géej gi ñëw fii ci njaareem mu bàyyeekoo ndar ñëw fekkaat ko fii waaw loolu nag moom moom sëñ Tuubaa bi mu ngi mi ngi jitoo maam Cheikh ñetti at fii njaareem ñetti at lu ko jitoo bi mu ko fi jitoo nag nekk na fi ak euh, ak diir ñetti at yooyu léegi nag ci la maam Sëñ Tuubaa daal di yebal ndaw ni ko mu fekk maam Cheikh Thiès la ko fekkoon booba boobu maam Cheikh jóge na Ndar ba ñibbi si ñibbi Thiès léegi nag ba mu nekkee Thiès la ko sëñ bu mag bi yebal ndaw loolu ni ko mu fekk ko Thiès ni ko mu fekk ko Njaareem ci ndigalu Sëñ Tuubaa la jógee Thiès ñëw Njaareem ndaw mu demee mi ko fekk toolam ñu naan Daaru Bayre la ko fekk ci ko fekk nee na bi ko ko tedd nee nga fekk ko Njaareem nee na maam Cheikh nee nañ dañuy rek daal ne àddoom digal fu la fekk fa ngay toxo daal di jubal si njaareem léegi nag jubalul kërug Cees gi dafa jël mbubb wala daal wala dara daa jubal si foofu rek ñëw jubal si njaareem léegi bi mu ñëwee ba njaareem nag Yéeli Manel Fall moom moo ko dalal waaye bi mu ko dalalee yàggul sax dalal gi waaye dañ ñëwoon foofu daal lëndamoon lëndamu biir la nag léegi nag ci la jógee foofu daal di ñëw ba fële mooy fi jumaay maam Cheram Fall ji nekk maa koy sanc tudde ko Madina Munawara la ko tuddee Madinatul Munawara la ko tuddee daal ne ah, fii de mooy këru njëkkeel gi 1915 la ko sanc ñii nee nañu ay 14 ak yooyu waaye man daal 15 laa jàpp man te loolu la ñu wax tamit léegi 1915 bi mu ko sancee maanaam diir ak diir gu ndaw rek maanaam peste beeg yooyu sonaloon ko foofu nag léegi mag ñi nag daal koy ko moom mu xamal leen ni moom du daw dee léegi nag ci la mag ñi waxe dawee wax ko sëñ Tuubaa ndax ñoom mag ñi seen jëmmi bopp dañoo wax ni maam Cheikh Ibrahima Fall buñ ko bu leen masaan a jaaxal maam xam nga kenn ñemewu koon moom du tubaab bi ndax boo demee archive nationale man liir naa ko ñoom tubaab bi dañuy waxoon ñoom seen jëmmi bopp dañ ko ragaloon moom waa kër yi boppam tamit dañ ko ragaloon ba daawuñu siggi tamit di ko xool ba CSM boobu nekk ci biir tamuy tourné te Alain def ko ci livre am benn tubaab bu bind benn livre def ci benn chaise boobu sax bu ci masaana toog ndax chaise bi ci digg bi lay ne neñ bu masaana tourné tourné ba si yàgg day jékki-jékki taxaw benn place nee bu taxawee benn place day fixé kenn ci mbooloo gi nee nañ bu ko fixé ak diir rek kooku day xam dootu yàgg ci àdduna bi loolu ñëpp xamoon nañ ko ci moom tamit moo tax nag waa kër yi boppam dañ ko ragaloon tubaab bi tamit bopp ñoom loolu lañ bind ñu dañ ko ragaloon ñoom léegi nag nee nañ bañ waxee loolu maam si xamal leen ni moom daw dee ci lañ dawee wax ko sëñ tubaa nag buñ ko waxee sëñ bu mag bi sëñ bu mag daal koy jox ndigal ni ko mu randu si fii si sowu bi xam nga fii lii sowu la léegi nag daal koy jox ñetti ëmbi suuf la ko jox léegi lenn li moom la maam Cheikh def si jumaa ji biir jumaa ji la ko def leneen li mu def ko ci biir almeer yi nga xam ne moo nekk ci diggante Madina googu ak Makkatal Mukarrama gi léegi almeer yooyu nag dañoo ni moo doonoon daaree maam Cheikh Rafal bi njëkk fii njaareem mooy jaaree tarbiya mais peste beeg yooyu nag moo tax mu mujj ko soppali ay almeer daan fa nit mooy ci peste bi léegi nag bi mu jógee foofu leneen suuf si mu indi ko fii ci biir kër gi <coughs> daal di fii ñëw foofu ci ndigalu Sëñ Tuubaa ñëw sañ ci fii fii tudde ko Makkatal Mukarrama la ko tuddee bi mu ñëwee ba sañ ko nag la ne ah doom fii de mooy këru mujjël gi waaw mooy këru mu jël gi waaw. Ah, su la neexee mën nañoo continuer dem ba fee ñu. kon ñu ko waxee rek dañuy continuer. waaw euh, Fallou euh, ak équipe bi ñu topp ñu ñu daal di dem fi nga xam ne rek euh, mooy barab yi sell yi. waaw kon ba tey rek ñu ngi fii nga xam ni. Euh, ci lenn ci barab yi la euh, lii dafa mën nii ëkk garab la man nga cee dellu si. waaw lii moom daqaar la. Mhm. maanaam tam xaw ma tamarin lañ koy xaw ma léegi Dakar la. Mhm. damay tamarin si waaw léegi nag maanaam euh, maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Tuubaa ko jëfandikoon ba noppi mhm. laa ko Dakar. léegi maam Cheikh jël doomi Dakar yi daal koy ji ci biir kër gi. léegi benn Dakar gi moo nekkoon fii beneen bi moo newoon fële ci biir. xam nga dañoo wax ni maam Cheikh Ibrahima Fall daawul sax takk ay téere di ko takk. moom lépp lu sëñ Tuubaa masaana laal rek ci loxo mi tedd da ko daan jël di ko def ay téere di ko takk wala mu ko jàllantul di ko dugal ci barak bi mm-hmm. léegi nag daqaar bu laa ko daqaar boobu suñ mbëng bi jëfandikoo koon ci mm-hmm. moom la jëloon doomi daqaar yi ji ko ci kër gi mm-hmm. ba taxoon na daqaar gi tamit day faj fi doone nit ku ne tawat du mënti doon soo ñëwee da ngay rot ci ndaal eh, si teen bi ñëw sotti ci ndaal yi daal di bari daqaar gi am na ñoo xam ne ay cancer la am yoo xam ne dañuy am benn weer lañ leen di jox am na ñoo xam ne dañuy yor ay AVC wala yooyu yëpp bu wala ñu dugg ci kër gi rek ñaan wër daqaar gi wala dugg ci biir barab bi ñaan da ngay dem moom loolu day dañ moom loolu moom bëri na fi ay ay yu bëree bari kaa yu bëri yu fi am mhm. ba tax na tamit maanaam képp ku tawat tawat di mënti doon mhm. da ngay ñëw rek di bale daxaar gi di root ci teen bi ñëw di sotti ci ndaal yi mhm. léegi bâtiment bi nag maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko fi bàyyi woon jamono yi bi nga xam ne mooy ati mujj yi nga xam ne ci la nekk woon fii ci kër gi waaw ci jamono jooju la ko tabaxloo woon sëñ Abdoulaye Yakhine Diop moo ko tabaxal mais plan beeg yëpp tamit nii la ko maam Cheikh Rahane bàyyi woon mm. mais ban la woon mais sëñ Cheikh Ndigal moo ko tojoon euh, yeesal ko def ko ciment mm. bu ko defee fii yi ngi nekk sa ginnaaw ni mm. ay waa këri boppam ñoom ñoo fi ne woon amoon nañ fi ay ku ci ne nekk sëñ Assane Fall sëñ Modou Moussa Fall ba dégg naa sëñ Modou sax dégg naa Moussa tëll ci buntu kër gu mag rek ñu doon wit wit yi nga xam ne sax moom la sëñ bi yor sax bu ñëwee dina mën a tegu ci garage bi waaw commune Kaaram boobu nga daan dégg moom moo daan gaare fii léegi bâtiment bi maam Cheikh moo fi dëkkoon chaise bi ngay dégg noonu muy tourné tamit mi ngi fii ci biir bâtiment bi moom rek moo demul ci bagage yi mhm. ndax sëñ bi moo ci nekk sëñ Cheikh Ndigal mhm. léegi nag fenêtre boobu ne mhm. la tudde woon sarsaral li ngeen di dégg moom la ñuy wax moo buntu kaaba ga ñoo jàkkaarloo fenêtre boobu am na beneen fenêtre bu mu jàkkaarloo nag fii moom yeneen mbindee fi ñoo ko fi daan fekk léegi ma yi nii rek la maam Cheikh di jaar traversé day dem ba nële tëjji fenêtre boobu jàkkaarloo mag ñi ci ëtt bi mooy ëtt bu mag boobu léegi nag mu toggee ndog yi ba pare mu taxaw foofu ñaanal mag ñi ñu yóbbul ko sëñ Touba beneen fenêtre bi moo nekk boo wiiree fële ci biti mhm. moom moo jëm directement kër sëñ Touba ga mhm. waaw mën mhm. gi da nga ci wax lu maanaam ñi nga xam ne dañoo am tawat euh, ak bu manti doon ñëw dugg fi waaw euh, te ñoom xamuñu ni ñu koy jëfandikoo ñoom bu ñëwee maanaam dañuy fàq ci euh, ëkk gi wala nu muy demee ëkk gi moom kenn du ko fàq ndax Dakar gi fi ñu doon bi muy dund kenn ñi mun ko woon a dagg ab xob sax daawoo ko ci lekk loolu moom ñun ñu fi nekkoon ci kër gi xam nañ ci dara waaye Dakar gi boo ñëwee da ngay dem root ci kii bi daal di jël bale rek daa di bale fii bale euh, waaw bale waaw xam nga bale dafa am secret yu ci nekk te loolu jamono yi maam Cheikh Rafal la ndax suñ maam Cheikh fi ñu doon nii kër suñ tubaab leen la fa nekk woon muy bale mhm. mooy bale ak buub ak maanaam root ak taxañ mhm. loolu la fa daan bale mooy buub rek benn la mooy buub léegi nag yooyu ñett yooyu la fa newoon mhm. waaye yii dafa dafa doon loo xamante ni bale maanaam boo borom yi tawat daal moom daal da cee da lool sax da cee ba pare waaw day bale rek daal di naan naan boole ci nag nga wut ci ñetti ndoxi ndax njàppetu sëñ Tuubaa yi maanaam maam Cheikh da ko daan def ci biir teen yi mooy teen bi nekk ci ëtt bi moom ah. mooy teen yi suñu Ablaye Yaqin Diop bu Thiès ah. mooy ki denc rond-point Thiès bi moom moo ko gasaloon loolu moom nit nekk na ba New York fan yee sax ñëw na fi dañu ko nettali New York soxnaam di accoucher mhm. mais ba muy accoucher nee la doom ji amoon problème jafe-jafe mhm. léegi tubaab bi xawoon na am a jaaxle ak yooyu mhm. ndax doom ji dañ dañ woon léegi nag ci loolu nag ci la demee fàttaliku am na ndox mu desal ci këram mu dem jëli ndox ma ñëw bi mu duggee ci saal bi bi mu ko joxee soxna si rek ci ci saasi la tourné doom ji tourné waat waaw tamit bari na fi ñoo xam ne tamit mhm. ay ñoo xam ne damay bañ a tutu tutu waaw ñoo xam ne dañuy jëlee seen nit ba Dakar wala dara ñoo xam ne ay nit àdduna lañ peut-être ñëw fi indi fi seen nit ñu pour sax da ngay gis ñetti fan sax lañ fi def am na ñoo xam ne koo xam bi mu mujjee bi mu ko defee ba noppi dégg naa sax moom moom après moom daal yëpp daal mëneesu ko xam nga am na yoo xam ne vie privée jàmbur la tamit waaw doo ko mën di wax ak yooyu mm-hmm. daal waaye kër gi daal moom man mii sax mm-hmm. tawatee kër sëñ Tuubaa mm-hmm. léegi nag ma tawatee nag laa ñëw ci kër gi bi ma ñëwee nag bay jox sëñ bi kaas pour mu ñaanal ma sëñ bi daal di fel kaas bi daal ni ma tee ngaa dugg setal ma kër gi boobu daal di jox bale ak tame loolu moom bi mu fi duggee waaw loolu moom mën naa ci seere sama bopp moom kër la goo xam ne tamit nit waxuma laa dara sax waaye nit ñi dañuy taxaw rek taxaw ngay def nii xalaat génn dem loolu jàppante loolu moom <laughs> ndax tuile yi bu ñu demee dinaa la ko wan naa la ci leeral waaw <laughs> maanaam bari bi yaatu na te bagage yi tamit euh, bari na bari goo xam ne lépp rek jëm ci liggéey ku tedd ki di maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina ci euh, li nga xam ni waaye sees boobu nga xam ni moom la bàyyeek njaboot gi moom dinañ ko mën a gis sees boobu moom maam Cheikh Ibrahima Fall moom suñu <laughs> Cheikh Ndigal la ko yor ci appartement suñu Cheikh Ndigal waaw ah, lañ ko dugal waaw sëñ bi moom moo waaye sëñ bi tey bu ñu woon ku fi ñëw mën nga koo jël comme année <coughs> bind livre bi mu ñëwee sëñ bi waxoon na ma ni ma ko tijjil mu xool ndax gars yi dañ doon werante ndax seesu maam Cheikh wala du du moom waaw dëgg la léegi nag lii moo doonoon waañ wi xam nga maam seex kër gi uh-huh. maanaam fukki nit ak ñaar la fi tegoon uh-huh. maanaam genre administration la ko defoon mhm. léegi ku ci nekk dafa am benn fonction bu mu la joxoon ci biir kër gi comme lu mel ni Baye Cheikh Tall Golo moo yoroon waa góob togg mi mhm. ndax maam Cheikh si dundam jigéen mosu koo ko fóotal mhm. góor ñi ñoo daan fóot ñoo daan togg ko daan toggal fii ci waañ bi su père bi daan ànd ci ndog yi daan dem sëñ tubaa tamit fii la ko maam Cheikh daan taxawul boppam même njabootu sëñ tubaa gi di nga leen dégg ñu naan ñëwoon euh, waañ wi la leen toggale woon sëñ Modou Moussa Mbacke sëñ Fallou sëñ Bachirou benn bis topp nee nañ maanaam fukki nit yeeg ñaar yooyu bàyyi ngoon nañ ñang tamit ci la bokkoon ndax nee nañ yoroon na caay moo yoroon caay bi caabi kër gi tëjëg tëji am na ko yoroon làmp yi làmp yi tamit fak sa guddi fukki làmp moo fi daan takk ci kër gi ak ñaar léegi Baye Ibrahima Kane mooy Baye Cheikh Kane mooy ko tabax jumaay yow jumaay maam Cheikh ji maanaam kooku moo yoroon wàllu trésorier moom moo yoroon wàllu coffre xaalis yi am na ci koo xam ne tamit maanaam moo yoroon bàyyi wàllu jur tamit da ko doon def fii li ngay gis nii lépp fi doon sax dekkale nañ ko dekkale nañ ko ab tuukóor la mhm. tuukóor mooy jardin boo xam ne mhm. lépp lañ ciy bay mooy ay guyaab ak ay mangoog ba noppi dafi defaat ay sob ay basamante ay kaani ay genre yooyu yooyu yëpp dañ waaw waa kay dekkale la léegi nag loolu lépp da ko programmé woon mhm. pour bu la sëñ Tuubaa fekkee ci biir kër gi wala doomam di ko mën a teral ba mu gën dem te kenn du xam ne gën am na fi xam nga yooyu yëpp boo ko fàggoo yor ay xar ay yor ay béy yor ay ginaar yor ay lijum ak yooyu yëpp waaw waaw xam nga loolu lépp tey gan goo mënti am rek da ko mën a teral ci biir kër gi ba mu génn dem te doo dem marché doo dem fenn lépp ci biir kër gi nga koy fàggoo loolu nag mhm. euh, maanaam euh, jëm ci loolu nga wax noonu dafa am solo mhm. ndax njaboot gi ñu ngi ciy bàyyi xel di jëfandikoo euh, plan boobu wala mhm. système boobu nga xam ni ku tedd ki doon na ko def waaw loolu moom njaboot gi moom ñi si ñi si ne bari nañ ñi si ne bari ndax maam am na ñoo xam ne fa leen seen maam bàyyoon ba léegi fa am ci kër gu àdduna ay tool mokk gënal ndax moom 24 heures sur 24 mi ngi yi mi ngi ci tool yi bañ na ko ba États-Unis wala France ak fu mënti dem mm-hmm. da koy gis mu ne ay tool moom lay lay filmer yooyu xam nga kon kooku moom li ko maamam bàyyi woon mi ngi ci waaw da koo donn mm-hmm. te tamit nee na waxul la waxul meññeef te fi yi waaye garab yi muy saxar rek mm-hmm. nee na ñuy tudd yàlla rek nee na doy na ko sëkk xam garab yi sàbbaal rek mhm. moom waxul sax muy génn ay firu yeeg yooyu waaye moom nañuy sàbbaal suñu borom rek nee na loolu rek moom doy na ko bànneex la ci moom kon kooku moom xam na li nekk ci mbay mhm. xam na li nekk ci ab tool mhm. yooyu xam na ko tamit waaw xam moom tamit day bay di dunde moom sëñ Cheikh ndigal ndax yi muy jënd yi muy kii yëpp da koy ay toolam la lépp lay bay day bay soble day bay ceeb mhm. yooyu yëpp da koy ay dugub ak mboq gerte gi lépp da koy bay waaw bu joxee addiyee li muy joxe ba pare mhm. yi si des yëpp da koy yóbbu ci ay këri boppam waaw léegi bâtiment bi moom mu xaw a kii dafa mel ni fekk na jamonoy Cheikh waaw bâtiment bi moom fekkewul jamono yi maam Cheikh mhm. jamono yi sëñ Cheikh Fall la fekkee sëñ Cheikh Fall bàyyi góor mooy bàyyi sëñ Cheikh Ndiga mooy taw maam Cheikh Rahima Fall bi nga xam ne moom sëñ Mourou Moussa Fall moom moo ko meññee moom fekk na jamono yi sëñ Touba tamit moo ko sëñ Mourou Aminta léegi nag fii moom moo ko defaroon wajuru sëñ Cheikh Roqaya suñ Cheikh Roqee mooy suñ Cheikh Ndigal soxna Roqee Fall moom mooy waajuram bu jigéen ah, waaw xam naa fa dañ koy yeesalaat nag waaye nag mm-hmm. tab jubloo ko ci waaye daal xam naa ne daal moom foofu wàccuwaayu soxna Roqee Fall la waaw kon ba tey ñu wëy rek ci li nga xam ni moo jëm ci barab yi nga xam ni ay kéemtaan la nekk fii ci kër ci kër kër kër Cheikh fii ci Njaareem waaw ah, ngeen ànd seek euh, seen premier site internet euh, ci Sénégal di euh, Sénégal 7 voilà ak groupe info réew mi Dakar net voilà. Euh, moom. Mhm. moo doon jëmmi néegu maam Seyna bu Ndiaye. waaw mooy teen bi. bi mu fi jógee mooy teen yi teen yi nga doon lim sànq bii si la moom moo doon jëmmi néegu maam Seyna bu Ndiaye léegi bi mu fi jógee nag la ko maam Seyna rëdd ak tànkam daal koy gas ab teen daan faral di ñëw ci teen bi daan ci jukki di ci barkeelu waaw léegi lii fii ay soxna yi boppam ñoo fi ñoo kon bu njëkk waaye léegi daara internat lañ ko def dañ fiy jàngale alxuraan ak xam-xam ak yëpp rek ñii ñi ngay gis ñëpp ay njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall lañ waaw ay ay ay ay yoon nag ay robinet dafa dafa tas ci kër gi waaw foo dem rek da xel daal mooy tiwo yi waaw ay pompe lañ ko defal Fall lu jëlee tiwo yi gis nga pompe lañ ko def mu ànd ak courant bu koy xëcc tas ko ci kër gi nag nga xam ne foo dem rek da ngay tijji daal di rek